Ouais. moo ngi noonu Aliou nga ko di passe waaye Balaye Seck mu ngi noonu mu noonu ah def na benn ah passe na mu noonu mu noonu. lan lay wax daal yi. waaw jox ko daal yi. dóor kaay day dóor day dóor day dóor merci. bëgg bëgg da ngay ñëw ba sat romb ak sa butéel mel na déggoo ma de ragal gis nga barke sëñ Bamba mais nag waxuma loolu de la 14 la 14 mooy la 14 on avance on avance c'est bon c'est bon ah mais laser waaw le centre bi boobu jël na wali bal baa ngi wali mu ngi noonu mu ngi noonu amul ku baax loolu ko da am ko pass ñu ne wali gaay yi dina xule taxaw jàpp naa ko dina xule doxal naa ko rek joxal naa ko rek waaw waxtaan leen dina xule jox bi jox oh teggi bi mais bi ban la bi gën ñaa ko gis non mais oh li mu fóot boo ko xañu ci boobu gars yi dina xule jox na ko ñu ngi noonu Cheikh yor bal bi Cheikh Framaren Cheikh Faramareen Cheikh Faramareen manoon le Cheikh bala oh dana waa mais respect na ko Cheikh encore Cheikh Faramareen yaa ngi am occasion est-ce que dañ ko dugal bal ba bal ba dugg na ah non non dugul dugul dugul dugul dugul dugul dugul ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw Ndowo ouais quelle passe planti planti planti teg na ko dënn teg passe na Wally Seck Wally Seck qui frappe corner encore corner encore acteur yi ne encore. Faramare yaa ngi nii ñoom lañ mën a déglu yaa ngi acteur yaa ngi nii acteur na dañu tam fex am na xool seen costume bi dañu xool costume acteur yi. <laughs> acteurs yaa ngi nii acteurs yi instant yii ñoo mënee gum 2 bi à 0. ñoo mënee gum vraiment 2 bi à 0. tey 2 0. 2 0 2 0. waaw dañu koy mais acteurs dañoo ay laser quoi ay laser ngeen yore. 2 0 ay laser ngeen yore ay laser. vraiment ay amul la ma gën a gaz affaire bi amul la ma gën a gaz da ngay dem jëli benn góor mi dina indi ko ah góor mi na match bi pass ñaata la match bi pass ñaata la match bi pass ñaata la 3-2 3-2 la woon match bi pass match bi pass 3-2 la nga ñëwaat premier mi-temps 2 benn góor mi dina non loolu match bi pass non match bi pass 3-2 man maa dugal 2 bi man maa dugal 2 bi jusque là Papa Demba maa dugal 2 bi match bi pass ma feebar bi pa gars yi la xoo ah. non gars yi la ko xoo. bon bon vraiment. ay Sipé ay Sipé. mais acteurs yi mais Ngor. waaw ko yaa expliqué sànq ba léegi. non parce que damay bàyyi ba gars yi gën a. mais premier mi-temps deux heures. troisième mi-temps huit la deuxième. huit quatre laay dugal. gardien gardien gardien profondeur regarde mo Hey! arbitre barrage léegi léegi waaw léegi mu réglé barrage a kenn du ko laal. Cheikh Ibrahima bi téye woon def du ko neex. doole waaw xam doole. dafa def fi muus pour am couvent dóor na bal waaye défenseurs yi ñu ngi ko ñu mooy football. vraiment daf leen lii coup franc la. donc Ousmane bi mën a am benn stade. Ousmane dugg na mu ngi lay. daa da ngaa amee. tànk bi tane ko. waaw ci liñ def. ok. gars yi ñoo am coup franc. gis booy bi mën a cum de. içinde. Nasıl bir duygu mu? Bima bima. Bu sakti su, bu ci kaay. Suuf la. Koñ ko defee gis naa leen. Bima bima xoolal bu sakti suuf. ndeysaan bu nekkoon Abdoulaye Diaw. comme noonu. aywaay mu ngi may fàttaliku bi François Bocandé di jàkkaarloog naar di ko essayé. fii ci Sénégal 1992. dina xule dina xule waxtaan TV ak euh, Feeling Dakar non excuse moi Dakar live Dakar midi ñu ngi noonu la presse est là Basirou Wassaare tey Waly mooy dóor. Waly eh, dóor waay dóor. Ndourou Ndourou ku teel Ndourou ku teel Ndourou.

kee du téye bi mu waaw ah. waaye lan nga bëgg yow loo bëgg Seck li ñu sant waay li ñu sant waay. li ñu sant waay. man lu tax may sol. waaw waaw loolu am wala wala ci site internet. loolu am na loolu am na. waaye ñun yenn saa ñu def concert yi. fu ne fu ne ñu am am nañu ñoom fu ne. tey nga de oh là là dugg na seen yaa ngi si biir camp yi de waaye góor jàpp jàpp bal waaye boo génn terrain bi ngir yàlla. pom pom góor la kaatale na ko ba mu ba mu rulle. dafa ak dafa barke yàlla. sëñ bi ah sëñ bi ah. mais daa sibiri li gars yi yéen. jogal jogal jogal. boo ñëw da laa mën a jogal. xamee ngeen kii kii mooy Idaari. noonu di kaas rek. copain copain copain bat la. sama copain la copain dina ko de. non match bi balaa jeex fa troisième bi dugg. quatrième dañ ñëw dugal quatrième. troisième waaye. sinon vraiment. dañ naan da ngeen ñu remontada. keroog yéen a gagné keroog yéen a gagné. Ala Ndour Ala Ndour Ala technique faute technique faute technique faute technique mais non mu doon technique bu ko may doucement doucement doucement doucement. booy jël na terrain jël terrain bi su fekkee yéen terrain bi jël na. Deya Deya Deya dawloo leen waay dawloo leen. non non béykat bi da ngay ful. waaye Cheikh Sane la boobu ñëw di. waaye góor bi góor sax foofu na waay ah. Tut tut tut tut tut tut touche, touche, jeune, touche, allez Bien joué, Pimon, bien joué, Pimon. Pimon, bëgg naa la de. Jàmm taaf la. Non, tam bien, il est Attends nous, allez nous. Non, on est fort, on est fort, on est fort. On est fort, on est fort. Merci beaucoup. Jaajëf, jaajëf. On est fort, on est fort. Vous avez, vous avez, vous avez été plus présent. Jaajëf, jaajëf. Oui, mais, oui, mais li xew Beyrouth kenn day. Idali. Mën na ko Idali. Match bi jeex na. Match bi jeex na. Dañuy mu wala